association bi mu ngi tudd association des joueuses sénégalaises waaw ñun euh, jigéen association jigéen la boo xam ne day liggéey ci lépp loo xam ne mbiru ak ak fu jigéen la ak xale euh, ñu ngi ko sosoon 1974 donc ren ji la ñu am juróom fukki at ñu bëggoon nag a ah, juróom fukki at yooyu nga xam ne nag wax dëgg yàlla euh, du du lu am solo la juróom fukki at du dara du juróom fukki fan du juróomi weer ñu bëggoon ko célébrer wane ne yàgg nañ fi waaye yàgg nañ fi di liggéey liggéey rek moo ñu tax a jóg liggéeyal askan bi liggéey lépp loo xam ne àq ak yelleef la euh, di leen ñaax di leen saytu di leen dimbali di leen assisté ci lépp loo xam ne rek niru na euh, kii soxal na leen. donc association bi loolu lay liggéey ñu bëggoon nag 50 ans yi ah euh, fësal ko fësal liñ ci liñ ci jot a def boobaa ak léegi bi ñu bi ñu ko sosee ba léegi ah fësal itam fi ñu fi ñu bëgg a jublu jéego yi ñu bëgg a dox pour l'avenir alam bi ak kaaraange yi dafa di loo xam ne tey defe naa ne ay temu jamono la ndax euh, euh, gis nañu problème yu bari yu am ci alam bi problème mu ndox problème mu inondation Euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne saa yu amee jigéen ñi ci ci ñi gën a am soxla lañuy bokk ak xale yi donc euh, ce sont les ce qu'on appelle les populations vulnérables kii itam sécurité sécurité itam du sécurité national rek mais aussi maanaam lu génne ci bi jóge ci biti ñëw dugg ci suñu biir réew menacé ñu du loolu kese. ci biir ci biir Sénégal gi itam daf ci am ay forme de sécurité yoo xamante ne dafa am solo muy sécurité bu jëm ci par exemple euh, su ñu ma ko mën a waxee ci mbiru internet cybersécurité cybersécurité dafa di lu lu lu taxaw ci ci jamonoy tey réseaux sociaux yi lu ne lañ ciy gis lañ ci gis lu baax dañ ci gis safaan bi ñu bëggoon nag en cas de harcèlement en cas de euh, ci li nga xamante ne daal euh, ay ay ay matukaay lay doon wala ay text yu ñu mën a mën a jël pour xool ba xam ni ñuy mën a aaree xale yi parce que surtout xale yi ak jigéen ñi ñoo ci gën a exposé ci biir internet ak cyber cyber criminalité bi xool ba xam ni ñu koy ñu ngi koy say saytoo question yi ak ñu ko mën a saafaraay. ah defe naa ne day AJS bu dul association bi ñu gën a xam ci Sénégal bokk na. ci yi askan wi gën a ràññee wax dëgg yàlla ndax dañoo am nag euh, dañoo dañoo ab diir la bi ñu fi amee euh, soseeg léegi cinquante ans du dara du du du lu tuuti mais euh, dañoo wàcc ci askan wi di liggéey ak ñoom. te ni ma ko waxee boutique de droit yi moo ñu ko permettre ak aussi suñu yeneen activités yoo xam ne dañuy dem ci gox yeeg goxaat yi am ay parajuristes yoo xam ne ñoo leen formé ëpp nañ junni ay góor ak i jigéen. gratuitement lañ koy def ay bàjjenu gox ñuy liggéey ak ñun pour gën a mën a euh, nekk ak askan wi saafara seen i seen i jàngoro. liggéey ak ñoom ni ñuy liggéeyee woon ak yeneen gouvernement yi passé yëpp ndax ñun euh, am defuñu politique association apolitique lañu euh, liggéey ak ñoom ni ñu liggéeyee woon comme je l'ai dit ak. président yi fi jóge yëpp ak gouvernement yi fi jóge yëpp surtout nag ministère de la justice ministère de la femme ak yeneen ministères yi nga xam ne yëpp war nañoo mën a liggéey ak ñun microfinance ndax lépp loo xam ne autonomisation des femmes dañ ciy liggéey donc euh, continuer rek li nga xam ne moom la ñu commencé woon ndax dafa am nag ay dossiers yoo xam ne yu am solo la jëm ci mbiru code de la famille jëm ci euh, lépp loo xam ne ak ak yelleefu jigéen la yu ñu jotoon a liggéey depuis 2016 ak ministère de la justice ak ministère de la femme te gis mu antu ñu bëggoon nag euh, continuer liggéey bi euh, ak gouvernement bu bees bi et aussi ñu gën a euh, continuer gën a jox jigéen gëddaam ndax am na liggéey boo xam ne association yi liggéey nañ ko jigéen yi liggéey nañ ko ci Sénégal depuis indépendance ak léegi loolu warul sooxee lañ koy wax defe naa mu gën a warta sooxe warta taxaw itam mu war a ma gën a jëm kanam rek loolu la ñuy xaar ci gouvernement bi orientation yooyu mooy d'abord dëgëral dëgëral a dëgëral suñu association association xam ngeen ne bu am 50 ans ñi ko sosoon daanaka bu ñu fi nekkul itam bu ñu fi nekkatul itam xëy na amatuñu boobu kàttan pour liggéey donc euh, il faut passer le témoin à la jeune génération génération bu bees bi moo war a ñëw te loolu nag suñu première préoccupation la fexe ba xale jigéen ñi gën a ñëw ñu ngi woo képp koo xam nga am nga am nga maîtrise de droit master en droit mooy mooy mooy moom la ñu bëgg moom la ñu euh, euh, requérir pour nga mën a nekk membre de l' association foog nga nekk juriste maîtrise master en droit boo ko amee la ñëw nekk membre jàpp ci liggéey bi ndax euh, defe naa ne bu ñu liggéey askan bi la ñu liggéeyal te liggéeyal askan bi loolu suñu borom rek moo lay fay loolu lañu yaakaar donc gën a association bi ak euh, yeneen génération yi ñëw jàpp ci liggéey bi et aussi continuer euh, donc yeneen thème yeneen thématique yoo xamante ne sotteegul amaguñ ci ndam ñu bëgg nag xale yëpp taxaw ci ak mag ñi ñu àndandoo lëkkaloo ak yeneen association yi ndax itam AJS du liggéey moom kese day liggéey ak yeneen association série ndax la kenn man ñaara ko ko dàq boutique de droit yi tey ñoom ñooy liggéey ak population yi gis nga parajuristes yi ma doon wax sànq ñoom daanaka ñooy référé cas yu ci bari ci boutique de droit yi bu amee cas de viol bu amee cas d'inceste bu amee cas de pédophilie bu amee itam koo xam ne dafa amul kayit xamul njëriñu état civil nga sa doom juddu déclaré woo ko xaar ba mu war a dugg école wala mu war a def examen du am kayit ñu génne ko ci examen bi mm. intérêt état civil euh, lépp loo xam ne itam boo nekkee ca jafe-jafe ci sa biir sëy nga ñëw ñu seet ñu ciy jàppe euh, jàpp bi nag a branche yi nu ñu mën a defaree lu ñu leen mën a conseiller ba ngeen àndaat juboo waaw violence yi parce que violence moom loolu moom kenn mënu koo tolérer parce que violence dafa bari ay forme violence dóor violence saaga violence xas violence métital la violence euh, bañ laa jox dépense loolu yëpp ay violence la ah ku ñëw nag diis ñu ko ñu expliquer la li nga ci mën a li nga ci mën a taxawee ah, koo xam ne aussi xëy na peut-être dafa am problème ak employeur am fa muy liggéeyee contrat de travail a indi ko ay jafe-jafe donc façon conseil yëpp daal la ñu mën a indil